Dakar, nous sommes présents dans plusieurs donc, zones, dans plusieurs localités, euh, principalement dans les donc, départements de Dakar, Kermassar, Rufisque, Pikine. Donc c'est Dakar et sa banlieue. Au niveau de la commune de Yembel Nord, donc Promoville est donc présent, on va dire depuis la phase de pilote, avec donc l'axe de Gadaï, la route des Niaï euh, qui mène vers le lycée donc, de Yembel Ibrahim Diop. Également, Promoville euh, a aussi déjà réalisé, dans le cadre des travaux de Khayundawi, le pavage au niveau du centre de santé de la commune et, de l'église. Et présentement, toujours de, au niveau de Yumbel Nord, Promoville, dans le cadre de la phase euh, financée par l'État du Sénégal et la Banque islamique de, de développement, est en train de finaliser des travaux d'aménagement de bassin principalement trois bassins, deux bassins à Yumbel Nord et un bassin au niveau de Yeubel Sud. Également, ces bassins sont interconnectés, c'est-à-dire que nous avons réalisé des bassins. En termes de schéma de, de drainage, nous avons des collecteurs qui donc relient ces, ces bassins et qui donc drainent les eaux jusqu'au niveau de l'exutoire. Au niveau de Yembel Nord, l'exutoire se situe au niveau du bassin de Medina Gazon, surtout juste derrière le bassin 55 que nous avons donc réalisé. maanaam fii nu taxaw toll na jamono yoo xam ne kenn yi mu fee taxaw parce que woyi yi ñu daa nekk ñax mi nekk fi ak ndox mi kon yàlla dimbali tey ba mu leer ban man fee taxaw di wax nii loolu sant yàlla la te di leen sant tuxu naa sama kër ñetti yoon bu ne ndox moom a dàq ak ñax mi ñetti yoon tuxu naa ko ba ndox mi dem ma door a ñëwaat kon am naa yaakaar ni tey bu ñu demee ba ëgsi fii lépp ak cant la wax dëgg yàlla noo ngi leen sant bu baax a baax a baax ndaw yi gis nga mën naa sax am na loo xam ne duñ lu ñuy wax lu ñuy gis la ndax bu ngeen xoolee suñu ginnaaw boobu lee ñi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sport ñi nekk fi di di di te loolu amu fi woon pour wax pour dire vrai heure bi kenn daw amul sañ-sañu génn soit yaa ngi sa biir kër pour cause agression wala euh, bassin euh, ñax yi nga xamante ne dafa feesoon fii del nga xam ne ni amuñu woon benn espace boo xamante ne ni toog ak teg sun ataaya sax amuñu ko woon. C'est grâce à Promoville qu'on a pu Euh, réaliser ce, ce, projet. Nous sommes là depuis euh, deux ans et vraiment, nous travaillons en harmonie avec euh, Promoville qui, en fait, est en train de faire un excellent travail concernant ces bassins-là. Et vraiment, nous sommes satisfaits. La population est, elle est satisfaite par rapport à ces travaux qui nous a vraiment soulagés. Également, toujours donc, dans ces aménagements, euh, nous avons donc également aménagé les bassins en augmentant la profondeur pour donc euh, augmenter la capacité donc, euh, de stockage. Également, réaliser un mur de clôture pour donc assurer la sécurité. Également, aussi, nous allons euh, stabiliser les talus, faire également le donc, talutage euh, au préalable. Nous aurons aussi un chemin de ronde euh, en pavé pour donc, euh, pour donc les piétons. Aussi dans le cadre de, de synergie de la collaboration entre Promoville et, et donc euh, l'ANER, nous avons déjà posé 35 euh, candélabres au niveau des bassins de Yumbel, tout autour des chemins de Rome.